parce que iblis du baye jamono bu nek day jaar ci sa soxna wala mu jaar ci sa dom kon bu jafe-jafe amé ñun ñu bëgg ànd kon suñu mbir nanu ko dello ci yàlla ndem gëm nañ waxon nako sax fa in tanada'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil axir dafa am ben autorité bu mat bu ma dajeel bu yàggul lañu daje ñu daje mu ne ma oustaz yàlla xam na ko seen liggéey baa ngi dem de bu leen ko xeeb de oustaz wallahi lii la mu wax mu ne ma te gëmal ni oustaz administration li nekk ci biir ñi ci ëpp yéen la ñu àndal wallahi dafa fekk nag ni ñu bëri mënuñoo feeñ mais ñoom ñu ci ëpp sunna la ñuy dund oustaz sunna daa noppale allahu akbar la ma ko waxee dafa noppale waaye sama xol baa ngi sedd sama xol baa ngi sedd ba sama bët yi taa sama xol baa ngi sedd ba sama bët xol mu tuddal ma ay kilifa ci armée bi tuddal ma ay kilifa ci gendarmerie tuddal ma ay kilifa ci seen biir ma ne ko waaw xam naa ci daal ndax jamono bi ñu may yóbbu rëbës ma ne fa dama jékki rek benn suba teel ñu woo ma bi ñu wooyee ne ma ñëwul wuy chef de cour ma ñëw mu tuddal ma benn colonel ak benn général ne ma xam nga leen ma ne ko wax dëgg yàlla xaw ma leen mu ne woote nañu fii nee nañu nañ la teg ci condition yu baax a baax wallahi te ñooñu <laughs> xaw ma leen woon jël numéro kenn bi jox ma ko ma wote jot ko mu ne oustaz mbaa ma benn problème mbaa benn dunq laalu la mbaa benn lënd laalu la ma ne ko vraiment RAS waaw rien à signaler <laughs> vraiment loolu laa ko vraiment RAS non mu contane ne ma oustaz xam nañ lépp ñu ngi ci suuf day dañ day dañ effectivement gis nga biñ ñëwee ci suñu <laughs> procès bi damaa pare yenn chef bi dara naa oustaz mais oustaz may ma ci ibaadu yi yow yaa kilifa ibaadu yi <laughs> te tellement que ndeysaan sa xol bi dafay sedd sedd boo xamante ni waa ji wax ma benn kàddu ne ma ma ñëw mu ne ma oustaz mosuñoo tiit ni ñu tiitee tey xanaa ci procession ko bi dafa mel ni yéen ñaar dafa am lu leen yàlla defal vraiment tey moom tiitoon nañ xoola xool lu mel noonu lan moo ñu koy may mooy ñu dund sunna ñu nekk benn waaye nag nekk benn bi intérêt bi bu mu nekk nekkati pour lu ko ne yóbbu këram intérêt bi mooy suñuy tilim tilim nañ ko sànni fole sëñ bi mënoo dund sunna ay at di dese yenn jikko yi man gëwma loolu am na jikko yoo xam ni moom dañ ko war a xeex moo tax damay wax ni waroon nañoo fexe